docteur euh, Omar Boun Khatab Thiam ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. am mbégte lool dalal la ci réew Rewmi FM tey euh, di nag euh, waxtaan ak yow en tant que président alliance nationale pour la sécurité des patients ñu bëggoon a xam dokteur yan matukaay ngeen jël ak yan jéego ngeen dox ginnaaw la amoon ca hôpitalu Linguère muy service néonatologie ba lakkoon yóbbaale ñeenti tout tànk. commencé di jaale et ñi ñàkk euh, waajur ñi ñàkk seen seen bakkan ci lakk-lakk bi xew Linguère damay yëgal ne ñun taxawaay bi ci am mooy maanaam li suñu sabab mooy depuis 2004 OMS dafa samp kuréel bu ñuy wax alliance mondiale pour la sécurité des patients mu digle Euh, pays membre OMS yi yi nga xam ne d'accord nañoo politique am pour que ñu defar associ ñu euh, fexe ba association bi mel am ci seen ci seen réew yi kon nag ñun ci loolu la ñu sosoo ba ñu am suñu récépissé en deux mille dix ñu nekk ma nekk président alliance nationale pour la sécurité des patients loolu nag li ko tax a jóg mooy aar Euh, prévenir maanaam euh, fexe ba accident yu mel nii bañ am ci bërëbu fajukaay yi accident yi mën na euh, nekk ci affaire batiment yi affaire équipement yi affaire affaire personnel bi mën na nekk aussi ci ni ñuy joxe ñuy ñuy defee paj yi hmm. paj mi ñu ngi koy ñu koy joxe maladi waaw loolu mooy suñu rôle léegi nag dañuy ñaan eh, ministère parce que léegi famille yooyu surtout yaay yi nga xam ne ñàkk nañ seen seen doom am nañ traumatisme euh, psychologique ñu war leen euh, fexe daal ba docteur euh, psychiatrie wala psychologue seet leen pour mun leen dalal hmm. ah, accompagner leen loolu nag bu loolu weesoo ñu def euh, euh, analyse situation bi xool ah li waral lakk-lakk bi fan la mbir muy sooxe fan la jógee pour que ëllëgee ñu saytu mbir yu mel noonu pour que mu bañ mu bañ a amati. Hmm. ñu ngi yëgle ne procédure judiciaire daañu ko tàmbali bu fekkee sax dooragul alliance bi est-ce que mi ngi xalaat doon ci partie civile wala am ci taxawaay. ñun sunu sunu taxawaay dul foofu sunu taxawaay mooy aar fexe bu yu mel ni bañ a am. Mm. maanaam ci njëlbeen lëkkaloog ministère ah, di pour mun def euh, li ñuy wax précaution prévention. Mm. waaw pour que yii jëf euh, yi bañ a am maa ngi fàttali ne alliance bi ba mondial ba mu juddoo. defeem bu njëkk mooy maanaam xeex ci euh, pour nga dem ci euh, bërëbu fajukaay yi mala nga mën a ci paj mi nga jële fa feebar wala nga wa euh, nga wàll keneen feebar hmm. moo taxoon ñu encouragé affaire li ñuy wax raxas say loxo balaa corona bi ñëw ak bala Ebola di ñëw donc ñun ñoo doon ànd ak ministère di def promotion hygiène des mains pour que yooyu infection yooyu jàngoro yooyu wa wàllaate bañ a mm-hmm. parce que mënu mënuñoo di faju si mm-hmm. nga jël fa beneen feebar boo xam ne indaale woo Mm-hmm. alliance bi yaa ngi wax euh, role bi muy joué euh, fan la seen euh, mën-mën yem ndax dangeen di am ay digle yoo xam ni dangeen ngeen koy yëkkati jëme ci kilifa yi bu dee waaw ndax ña ngi koy topp. waaw waaw waaw mënuñu lu mooy wax saytu di wax di ànd ak ministère bi liggéey ñun dañuy nekk pour dooleel ministère bi pour que mu def promotion promotion maanaam. aar aar fexe ba euh, accident yu mel noonu du am dañ koy euh, promotion bi mooy fexe ba bâtiment yuy tabax ñu def ko ci condition ana euh, ba mucc ay bu ñuy recevoir bâtiment yi bu ñuy recevoir équipement yi mu nekk équipement yu mujj ayib yoo xam ne mënu indi lorange bu ñuy xool ni ñuy fajee ñu xool règle yi ñu jaaree la ko yoon pour que juub de bañ ci am yooyu yëpp loolu la donc appui la boo xam ne pour bañ procès yu mel ni di am wala jéyee yu mel ni di am. est-ce que ministère bi may na leen nopp ni mu waree. non non non ça sur ce plan sooxe na ministère bi nag euh, yaakaar naa ne euh, collaboration bi des na mën na gën a ratax ni hmm. waaw d'ailleurs euh, presque. Euh, existé wul quoi. Mhm. bu weesoo hôpital Linguère Fann gi keroog jëye xaw tuuti mu am fii yan mooy euh, condition yi nga xam ne docteur structure sanitaire yi maanaam hôpitaux yi war nañu kaa respecté ngir mën a sàmmonte ak norme sécurité yi ñeel malade yi ndax itam Sénégal hôpitaux yi ñu ngi sàmmonte ak yooyu charte. waaw euh, des na tuuti des na parce que même su fekkee am na ay inspecteurs techniques yu ñu yu ñu fal. tabb pour ñu mun a def contrôler mais bu ñu xaar ba jëyee am ñu dem di contrôler dañ di contrôler fu ñu toll pour mun a digle joxe ay recommandations pour que euh, hôpital bu ci nekk mun a jël matuwaayam pour que euh, ay accident bañ fa am. yan mooy matukaay yi ñu war a jël. ñu matuwaay matuwaay yi bëri na ci affaire par exemple bâtiment boo koy livrer ah, mu nekk bâtiment boo xam ne ki ko tabax. ingénieur bi technique bi tey taxaw mu ne bâtiment bi ni ngeen ko tabaxee jaar na yoon wala jaarul yoon parce que man maa ngi fàttaliku ci suñu service hydrologie bi ma nekkoon dégg nga bi fëgg gënoon bees te amul ñaar fukki at dal bi moo daanu yàlla moo sutural parce que malade nekkul woon foofu te fajkat nekkul woon foofu service vert dañ ko mujj a bâtiment boobu la ñuy détruire te bâtiment colonial bi ñu bi ñu jëkke tabax mi ngi foofu kooku moom dara jotu ko loolu mooy nag war nañ seetaat ci marché yi ci livraison yi naka la ñu ci équipement yi jumtuwaay yi ak euh, vraiment euh, ñuy fajee ko. Hmm. est-ce que am na ñoo xam ni ñooy saytu mbir mi. Euh, yaa ngi wax sànq comité yu ñu samp mais est-ce que am na ñoo xam ni dëgg-dëgg ñoo ngi taxawee euh, saytu bu ko defee yii bañ a am. waaw foofu soo sooxe na tuuti parce que euh, y a comme ni ma la ko waxee am na ay ñoo xam ne ñu ngi nekk inspecteur technique. Hmm. war nañ ko saytu mais est-ce que ñoom ñu ngi def. am nañ moyen pour contrôler pour wàcc pour saytu pour def ay rapport pour aar euh, kii bon justement euh, loolu foofu war nañ ko renforcer sooxe na tuuti waaw. docteur mhm. ñu ko gën a euh, rattaxal diggante bi diggante alliance bi ak ministère pour fexe ba structure bu nekk am comité d'hygiène ak sécurité. Mhm. bu fonctionnel laa wax waaw. hôpitaux yu bari am nañ seen comité d'hygiène ak sécurité mais euh, fonctionnalité bi des na doxul. Mhm. docteur seetlu nañu ne mbas mi mi ngi mel ni luy dellu ginnaaw boobaak léegi mi ngi bëgg am diir euh, ban jàngat nga ci def. mënu ma ci def euh, jàngat bu rek xanaa ah, sant yàlla su fekkee dellu na gannaaw sant yàlla mais il faut que ñu toog daal di def benn analyse Euh, saytu ko xool fi nga xam ne li lu baax liñ def ak yi nga fi nga xam ne euh, lajj nañ foofu ñu jéem a xool naka lañ koy renforcer pour que ëllëgee ñu mun a gën a mun a amat doole. Hmm. c'est pas parce que mbas mi wàññeeku na rek que dañuy bay déedéet dañu gën a serrer les rangs daal di toog waxtaan euh, def def situation bi comme niñ koy waxee xool fa suñu doole nekk ak fa suñu fa suñu faiblesse nekk jéem a jël ay matuwaay pour renforcer suñu faiblesse. Mm-hmm. ci sa gis-gis fan la ñu lajjee. ah man de su ma suma xalaatu bopp lajj nañ tuuti ci prévention bi maanaam ci aar bi. Mm-hmm. Ah, politique de prévention bi lajj nañ ci tuuti prise charge bi soo xee tuuti. ak recherche bi surtout nga xam ne Sénégal dafa am tradition nekk université euh, tradition universitaire moom daanaka ci Afrique de l'Ouest moom moo waroon nekk locomotive bi maanaam bopp saxaar bi nga xam ne mooy ci yéene te léegi nag Sénégal bu demee ci rencontre yi na yóbbaale gëstoom lu mu trouvé nan la jànkoonte ak feebar expérience am pour que ñi àdduna bi yëpp mën ci bénéficier wu hmm. Sénégal waru toog rek di absorber li jóge ci bitim réew dafa toll foo xam ne données di euh, war na dem ci euh, au niveau international ni ñun nii lañ koy xeexee ñun fii lañ toll lii lañ mooy suñu expérience ci mbirum mbas bi voilà rendez-vous du donner comme ni ñu koy waxee. Euh, ah, yaa ngi wax ne euh, lajj nañu waaye Sénégal de jot na ay raaya wala ay euh, kon waaw góor yoo xam ne daal mooy màndargaal ni liggéeyam ci Covid beeg ni ñu ko yoree baax na loola nu ko se man xam nga raaya yu jóge bitim réew te ñun ñoo nekk fii di vivre réalité yi. Hmm. man engagé wu ma. Hmm. wax yooyu ay waxu politique la xaw ma lu lu muy nuru. Hmm. wax yi daal bi ma gën a gëm mooy bi nga xam ne vivre nañ ko fii ñu toog. ñu waxtaan saytu affaire yi xool fi ñuy lajjee ak fi ñu kii waxuma ne defuñu dara de hmm. waxuma ne lajje nañ completement de waxuñu kii bi dafa am fu mu sooxee fu mu fu mu doxee ak fu mu sooxee. Hmm. loolu laa wax. deltu ginnaaw gi ñeel kaa yi da nga jàpp ne vaccin bi dara la ci. waaw waaw man de a ah, ah, defaguñu ba toog saytu pour xool lan la ci vaccin bi indi ma am naa njort bu rafet ne ah boo. population bi accepté nangoo dem ñàkku ji ah ñàkku bi xëy na tombé mooy waral ay gaaf xam ma nuñ koy waxatee mm. en tout cas résultat yaa ngi nii waaw mm. ci la delloo gannaaw mm. xëy na ñàkk yi am nañ ci effet mais du ñàkk yi rek dañuy xoolaat am na yeneen jërëjëf docteur mm. Oumar Boun Khatab Thiam ñu fàttali ni euh, anesthésiste réanimateur nga waaye itam yaa jiite lii di alliance nationale pour la sécurité des patients ñu ngi lay gërëm bu baax docteur